ci pëndub teen bi dañu naan gaañ amul baaga bugaan ngay dani ci critique yéen kaay naan déet président Macky Sall kay fi mu ne ci réew mi moo yor baak yi mooy séddale Sall jébbalal baak yi ci opposition bi ñu mën bokk ci élection yi turbine yéen a kaay naan Souleymane Ndéné Ndiaye dee ngay joxoñ président Macky Sall naan kon baak yi ngay séddale ci réew mi na ci Ousmane Sonko bokk manoo jébbal baak Khalifa Babacar Sall jébbal baak Karim Meïssa Wade na ci Ousmane Sonko ne ko doo bokk Souleymane Ndéné Ndiaye ci turbine yéen a kaay naan kon du dëgg du yoon moom Jules ci direct news naan wax ak day ma ngay bëgg jot ma ne la foo baalee Khalifa Karim sa Wade war fa mën a jéggalee Ousmane Sonko mu bokk ci les élections bugaan ci l'indépendant naan kon mooy dëgg de ndax nag ay élection la ñu jëm yoo xam ne ñépp war a bokk critique yéen a kaay kon du xam nga duma ku man sa morom duma lii nag la élection présidentielle 2024 di la tribune yéen a kaay naan kon du yomb te mësta yomb ay élection la yoo xam ne 2024 mësta am ci réew mi élection la yoo xam ne ñaari wërngal gi mënta ñàkk deuxième tour élection la yoo xam ne amul favori ma ne la ñay départandoo ca course ba ñoo bokk doole candidat yi ñoo bokk doole bokk sañ-sañ te élection la yoo xam ne kenn mënu koo gañe ci premier tour ma ne la lii am ci réewum Sénégal ren jii mësta am ci élection critique yéen kaay naan kon ma yigli Benno Bokk Yaakaar moom ña ngi koy tojate rajax déggoo ma ni la duma ku mën sa morom duma ay coup irrégulier ci wàllu politique mi ngi daal di dugg ay lobby yoo xam ni maar day taali ku ne fas yéene nag la nga xamal sa morom nga daal di koy goxi génnee ko di waajal nag sàll ngaari lam tooro burgé de kan fas yéene teg ci bopp bi ngir waa bennoo ci boppam daal di koy topp lii ko jee nan man kan la président Macky Sall war a tabb ci ñii Amadou Ba moom primature bi ci boppam moo ko joxuk tànk Mamadou Boun Abdallah jonn gore gi mu gore ci Sall ngaari Abdoulaye Daouda Diallo moom la Sall wóolu Aly Ngouille Ndiaye liggéey bu amul table amadu Mame Diop nag moom booy war kuy doon Sall mën ngaa jàpp le point yéen kaay naan kon fu ngeen fàttee na Dia homme d'affaires bi nga xam ne lii teel doomu aadama yi moo ko tax a jóg jaaree ko ci wend bosaay ba ba Tunisie ñëw ba añam Touba Ndakaaru ak banliam dem Ziguinchor ca diaspora ba doore ko Burkina Faso yéen kaay bi naan maan Arouna Jaday ma nga jàpp ne nit mënta am te boo seetee fukki mbokkam ya ko wër amuñu le point naan maan l'homme social la Sall ngaari war a geesu le quotidien le quotidien naan ko en tout cas lum cay def na gaaw moom président Macky Sall dogal bu mu mën a jël ci koy wutu na gaaw 24 heures yéen kaay naan en tout cas ci statut chef de l'opposition bi la Sall ngaari lam tooro bur gënee a jaar nag faagaagal leen fayal laaxu ñi ngi ruuma naat Bougane Gueye Dany ci yéene kaay bi nan ak lu mën a am président Macky sal na xam ne 2024 atub coppite la di réforme 2024 at la woo xam ne daañu soppi justice nu muy doxee ci réew mi daañu yëraat ña nga xam ne ñoo yoroon suñu am am naka lañ ko yoree waaye tam yëraat scandale yi nga xam ne bëri na ci Benno Bokk Yaakaar ndax nag coowal Covid bi moom mi ngi ci l'observateur naan kon Sall nag war na leeral lii Bougane Gueye Dany ci source a naan kon bu ko neexee bu mu ko leeral ndax ñun moom bu ñu yoree réew mi leeral fa yallaaxu naan kon opposition bi ci boppam boppam booloo doole wala faatu fayal laaxu moo fi nekk l'évidence naan maan Bougane Gueye Dany nee na président Macky Sall la la war fi mu ne comme nee nga bokkatoo Sall baal ñu rek libéral détenu politique yi nga xam ne ñoo am ci réew mi vox populi naan maan Gueye maam góor a nga jàkkaarloog waa opposition bi naan leen kaay leen ñu waxtaan ci suñu biir ndax nag gàcce bu jubee penc ci néeg lañ koy waxtaanee xam nga ñun opposition bu réewum Sénégal dañoo tasaaroo te tasaaroo boobee mën ñu jural fitna 2024 kaay leen ñu waxtaan ci suñu biir ndax 2024 nag yàlla a tàcc na ñun opposition bu réewum Sénégal Sall nee na bokkul ñun ci boppam ñoo war a doxal talal nag ba fa ñu ko bëggee loole pour mu am ma ne faaw ñu boole def ñaari say woo xam ne yu dëgër lay doon coow li mooy fexe ba 2024 kenn du ñu fa xastal waaye tam kenn laa la wax ni kenn ci Sénégal du fexe ba opposition du jël réew mi le regard yéen kaay naan man bugaan ma nga naan am nañu génn ndam ci président ki Sall mooy fexe nan ba ñetteel bi mandat moom Sall génn na ca la ca des nag moom moo di daal di xeex ngir libérer Sénégal libérer Sénégal waxtaan nag day dooree ci libéré ña nga xam ni moom président Macky sal nee na leen ciix daal di téye vox populi naan man soxna yaa ngay doxal de ña nga samp seen i ndënd jëm ci élection présidentielle yi fas yéene doxal nag ci tànku góor ñi Rose Wardini nee na candidate la turbine yéen a naan man Juma Jeng Jaxate it nee na desul gannaaw léegi nag moo jiite sous coalition bii di groupe des hors coalisés liberté ak responsabilité ñu di pee leen GACLR moom Juma Jeng Jaxate ci turbine yéen a kaay naan fal nan ma de waaye fi mu la moom moo daal di saytu ñëpp wax ak ñoom ngir nag Benno Bokk Yaakaar am candidat boo xam ne ñëpp cay ànd te ñëpp ko booloo waxtaan ci néeg docteur Abdourahmane Diouf ci yéen kaay des bi naan nañu xool bu baax ndax nag Sénégal ba mu moomee boppam ak tey kenn mëstafal président nag boo xam ne ña ngi ko basé ci programme yéen kaay bi naan maan waxtu woo waa F24 ña ngay sàkku Aliou Sané mi nga xam ne ña ngi ko teg gët fas ko yéene yóbbu ndungu siin ñu daal di cay deltu ginnaaw ndax nag mënoo génn ci troisième mandat bi ba ñëpp approuvé nga bëgg jël ñëpp jagat ci kaso bi ba élection Bougane Gueye dana ci yéenekaay bi naan kon xeex nañu ñetteel bi mandat xeex nañu yow président Macky Sall ngir nga abal nu Sénégal léegi nag abal nga nu Sénégal la des kay moom mooy nga bàyyi sénégalais yi ñu bokk ci élection sénégalais yi nga xam ne ku ŋàng tëj nga ba ko sàll ña nga xam ne jot nga leen yóbbu ci nungu siin ca kaso ba génnee leen la ca desit moom moo di ña nga naj ne leen duñu bokk ci élection bi nga ba ko na nooy sàll na ñëpp bokk ci élection mooy dëgg waxtu woow vox populi di ma xamal ne gouvernement gu Sénégal day ma ngay xupp France 24 ca na muy awa taxawale ay xibaaram ci réewum Sénégal mel ni nag ku nennu réew mi di jël ay xibaar yoo xam ne wérul di ko jor réewum Sénégal libération yéen kaay mel ni ku naan maan Sénégal yàqu na wala ca cité Apix ab xale bu am fukki at la ñu fekk ci koofur benn woto mu daal di faatu ubbi nañ ca enquête ngir xool dëgg-dëgg xale bi lan moo ko faat ak ci yenn anam la daal di faatoo ak lu mën a avant may lire interview président Macky Sall def tey ci le monde. le monde mais soo ko dinaa si ñëw ci benn phrase boo xamante ni bàyyi na ko. te ma jàpp ne phrase boobu c'est fondamental sénégalais yëpp war nañ koo dégg analyser ko. président mu ne si discours am bi. que objectif yu mu am. fii ak 2 avril dem na sax ba joxe date bi. mu ne fii ak 2 avril objectif bu mu am. mooy fexe ba ñu respecter institution yi. mu ne Moustapha mu fexe. ba décision de justice yi ñu appliquer ko. léegi Sénégal ban décision de justice moo fi des bu ñu war a appliquer. mooy l'affaire Ousmane Sonko. kese léegi Macky Sall la gën a xam ne. mënul appliquer décision boo xamante ne nii buñ ko toppee jusqu'au bout day yóbbu son ko kaso tout le temps biir Sénégal nit ñi di xalaat ne daf koo bëgg a def pour am troisième mandat parce que en réalité waxu troisième mandat xëy na en 2011 indi woon na fi coow. mais euh, depuis que président Macky nekk ci pouvoir bi ba léegi. ñaar yi fi indi coow dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mars deux mille vingt et bu ñu jàppee Ousmane Sonko. ak premier juin deux juin bi ñu tegee ci kawam ab condamnation. nekkul troisième mandat nekkul ceeb moo manqué nekkul mburu mi la ñu yokk nekkul leneen ak leneen ñaar yooyu ñoo fi indi coow yoo xamante ne nii tax na ba armée ñu génnee ko ci ay caserne léegi bu nekkee ne kooku nga xamante ni moo taxoon manifestation am fi hmm. nee nga yow di nga appliquer décision de justice bu jëm ci moom hmm. mën nañoo présumer ne quelque part coow dina ci topp mën na cee topp léegi bu nekkee ne coow mën na cee topp hmm. te yow président nga ne loolu la expliqué ci le monde oui. que li mënoon a tax moom mu présenté wu Macky Sall mooy wax de mu ne li mënoon a tax moom mu présenté wu mooy Sénégal nekk ci guute goo xamante ne nii day am problème de stabilité maanaam bu ñu nee Ousmane Sonko bu ñu nee condamnation lañ teg ci kawam. jàppale si suñu chaîne YouTube ngir jot saa xibaar yu ci réew mi ak ci bitim réew.